Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis téléspectateurs de votre Web TV, Elvision Média, nous voilà aujourd'hui au jour 2, la deuxième journée des Navetans de la zone 10, Sikap Aujourd'hui, au programme, au premier match, nous avons l'ASC Mandela qui a battu l'ASC Yeo sur un but à zéro. Mais n'oubliez pas, Mesdames et Messieurs, il reste trois autres matchs, trois autres matchs de choc, trois autres matchs de gladiateurs, des matchs qui vont opposer Tenbi à Nasurulai, Samsam 3 à montagne. Et pour clôturer, l'ASC Fasmao va s'opposer à l'ASC Djamireo Restez scotchés pour la suite des programmes. Je suis rek. pour ce match d'ouverture y a sur un score de 1 but à 0 nan nga le déroulement match bi. non kontaan rek. waaw yaa ma gën a xam ak euh, te ay ñii ñëpp daal ay carré montant lañ ah. man rek maa fi nekkoon si équipe bi ñëpp daaw dañoo dem ñi fi nekkoon daaw ñëpp a dem man rek maa fi des ñi ay carré montant ñii ñoo jël zonal ah. jël départemental dem final régional ñu ah. dóor leen ma am fierté nag football ak takkal leen capitaine parce que loolu moom kontaan naa si trop léegi yan dispositif ngeen jël ak yow yan yan sacrifice nga def en tant que capitaine pour mën a arracher victoire bi tey non xam nga rek mu jaral ma rek te ay ay man la dëkkuma fa nag hmm. waaye ñoom dañ ma jàppee comme seen doom te mu fier si loolu nag wax dëgg neex yàlla kontaan naa trop trop li yéene naa la ko te lis kanam a dàq nag. léegi ban message ngay jox say supporters say joueurs ak say futurs adversaires ci match yi di ñëw. non ñu gën a jàpp rek ñu gën a jàpp yokk liggéey bi yaa mu gën a xam ñu xam lis kanam mooy dàq incha allah. amul ragal merci Kapi. Je suis là avec le coach de l'ASC Mandela qui a été vainqueur sur Yeo sur un score de 1 but à 0. Coach, Nakala. Ça va, ça va. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wow, coach, l'autre fois ba ñuy def tirage bi man ak yow waxtaan nañ nga ni ma da ngay ñëw te da ngay won gars yi sa doole da nga leen di sa mënin te tey ñëw nga prouver nga li nga def léegi lan yan dispositif nga jël ak yan moyen nga def pour mën a ñëw confirmer li nga doon wax. parce que nawetaan du amul tricher. nawetaan entraînement la laaj. physiquement ak tactiquement. jour yi nag nga wax ñoom psychologiquement. ñu football daal di fo. parce que football fola la. dama ne soo la ñëwee xool supporters yi yenn match yi doo leen nit so ñëwee da ngay football librement tactiquement positivement xam ngeen ko li dess moy sen esprit mu libre soo demee fo len xam ni mënu des football nawetaan la mais tur bi rek tur football la. mel na entraînement ngeen nek la wax mel na entraînement ngeen nek mel na ni ngeen football la ñuy ay match entraînement da ngeen xool. vous allez gagner. boy nak croisement bi premier mi-temps bi soo xoolee. Mm. défensivement on était très bien. offensivement c'était pas bien. ok duggé ci vestiaire mm-hmm. yi ma disposition ngeen teg c'est bien. Mm-hmm. Euh, défensivement yéen kay ngi gérer mais mais offensivement c'est pas bon. tek len bal bi ngeen football ñi ay mag lañ xamna len am ñoo xam ñoo bokk génération mënatuñ ko so tegee ba football da ngeen di ngeen gagné. deuxième mi-temps ba ñëwee ma gis ne li ñu def ñu koy def yalla may ñu ndam maa ngi koy yalla bu baaxa baax. légui ban message ngay jox say supporters ak say joueurs ak say futurs adversaires ñi ñëw ci match prochain surtout ma supporters yi. Uh-huh. dinañ wax ne leen.

Voici à ma gauche Amdi Mustafa Wad, un spécialiste de la compétition. Je vais lui donner la parole pour qu'il nous fasse une petite analyse du démarrage de, la compétition et qu'il nous donne son aperçu sur l'état de la compétition. Voilà, mes premiers mots seront pour rendre un hommage euh, vibrant d'admiration à Monsieur le Président de la zone, à l'ensemble des membres du comité directeur et bien entendu au président d'ASC relevant de la zone 10 caves de Pékin, Pékin Mbao, bien entendu. Eh bien, cette année, le championnat est parti sur, les chapeaux de roue, c'est le moins que l'on puisse dire. Au regard des matchs d'hier qui ont été d'un niveau technique très élevé, les acteurs s'étaient battus de toutes leurs forces et avec un cœur gros comme ça. Résultat, le champion en titre tombe d'entrée de jeu. Eh bien, le championnat se poursuit aujourd'hui et va se poursuivre tout au long de la saison. Aujourd'hui, nous sommes là au stade Alassane Diogo de Pékin, Noir de Monde, de monde venu des quatre coin du département pour voir eh bien, la zone 10 de Mbao aligner ses meilleures équipes. Cette année, le championnat sera difficile, c'est le moins que l'on puisse dire, au regard des recrutements opérés par les unes et les autres ASC, mais également au regard de la mobilisation parfaite des supporters si collés à leur équipe et qui sont ces supporters, plus que jamais, décidés à les accompagner jusqu'au bout. Nous en appelons justement à la sportivité, au fair play. Et ça, c'est le président de la zone qui le dit le fair play parce que ces jeunes qui sont là, qui compétissent, qui se disputent, ils habitent ensemble dans le même quartier. Ils vivent ensemble et l'avenir leur appartient. Et c'est pour cette raison que la saison 2018 euh, est placée sous le signe du fair play. Et nous félicitons aussi, vous aussi Vision, pour le travail que vous faites de communication et qui va dans le sens du rapprochement des jeunes. Tant mieux pour vous. Nous vous soutenons de toutes nos forces et avec un cœur gros comme ça. Et souhaitons que les compétitions se passent dans les meilleures conditions. En tout cas, tant que vous êtes là tant que vous serez là très précisément, les jeunes seront bien encadrés, bien orientés et surtout bien informés. Et voilà ce qu'il faut pour une nation. Et vous y êtes depuis le départ et nous vous en félicitons. Merci. Merci, merci Wad. Il sera avec nous tout au long de la compétition pour nous, donner, pour nous apporter son expertise et ses analyses brillantes. A tout à l'heure les gars. Mesdames et messieurs, je suis là avec un supporter. Monsieur, comment Nice boy. cool. nice boy. man Mohamed. Mohamed ban équipe man maa ngi supporter Mandela. Mandela waaw. léegi nan nga gisee sa équipe nu mu nu mu dugg see tey. sama équipe. ah tey moom franchement parler moom nu mu dugg see moom baax na quoi. non daf ma neex sax nu mu dugg see. waaw. léegi yan message ngay jox say futur adversaire gaa yi ñëw. ci res ci compétition li ci des. a ah, ndey ku ñëw moom yow nga suuraale moom bu baax ndax instant yii nii damaa pare fépp yëpp ko laa pare fépp kay bàyyi ma fenn. yow gëm nga ni mën nga jël coupe. par force la loolu. gëm nga loolu dafa leer. amul ragal. Thank you. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes à la mi-temps de la deuxième rencontre. Une rencontre qui a opposé l'ASN Kenby à l'ASC Nasrullah. Ça n'a pas du tout été facile. C'était un match très serré. Les équipes ne sont données aucun cadeau. Et cela s'est terminé sur un score de 1 but partout. Alors restez scotchés pour suivre la suite du match et voir comment est-ce que cela va se terminer. A tout à l'heure.

sant yàlla quoi sant yàlla si machine yi bu tamit dañuy dem rek gën a yokkaat si 2 pour cent machine rek yàlla may ngi ndam lay ñaan yàlla di féliciter sama gars yi di féliciter benn équipe bi tamit ñaan yàlla xam nga rek projet yow gëm gëm nga ni ren mën nga jël affaire yi gëm nga loolu non si gëm nga si gëm naa waaw parce que daaw wane woon sa première année am première année kale te aussi tamit mu doon loo xamante tamit maa ngi si kontaan trop sama première année am si ñaari bii te yaakaar ma ko woon kale xale laa tamit toolu moom mooy am day ñàkk tamit te gëm naa ni sama équipe ren dama ñàkk pour confirmer tax dew ma mënoon naa équipe bi tamit feneen mooy moo tax ma ne dafay toog pour final pour dire que loolu moo des quoi. waaw damay sant yàlla ci loolu. ok merci bro. bon sax. je suis là avec le capitaine de l'ASC Nasrallah man naka la. waaw cool. ay cool. nice nice loolu jàpp mais match bi gis score bi ça s'est terminé sur un score de 1 but partout yan dispositif ngeen jëloon tey ak est-ce que. waaw jeex na tàkk comme gars yi nee nañu yaay la grand capi yan dispositif ngeen jël tey pour mën a ñëw def match bii nii. Euh, match bi ça ça ça n'a pas été facile quoi. xam nga parce nañ ko côté yëpp mais xam nga vu que recrutement yi ñu def xam nga te ren dañoo pare woon pour faire quelque chose quoi donc xamoon naa ne aussi affaire yi nii la mënoon nii la waroon mën a demee quoi xam nga on a tout on a tout donné mais xam nga yàlla mooy dogal quoi xam nga bëggewuñ ko woon aussi nii quoi suñ sañoon aussi génn ak 3 points yi quoi mais peut-être yàlla lu mu def xam naa moo gën quoi dañuy fexe liggéey ak xam pour bu ñu ñëwaatee prochain match on fera la différence quoi incha allah. mais compétition bi jeexagul bi mooy seen premier match donc ban message ngay jox say futurs adversaires ak lan nga leen di wax. non c' est compétition la quoi compétition la euh, pour man concentré wu ma si ñoom quoi man je me concentre sur mon équipe ak li ma war a def ak samay objectif quoi et j' espère que ni cette année on fera le maximum incha allah allah waaw mais pour l' on va gagner, on va, on va aller étape par étape. Quoi. Ouais, on va gagner match par match. Le reste, on sera, on verra. Merci, Capitaine. Ok,